asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen fas yéene nettali ñaari téere yoo xam ni dañu ko liggéey ci olof ci wax olof lañu wax ñaari téere yooyu ñaari téere yooyu ki ko liggéey ci olof mooy ku xam ci léppam ci yàlla rek la ko jeexal kooku mooy suñu sëriñ cheikhul islam alxaaji abbas sàll dañ koy gën a xame ci alxaaji abbas sàll bu Louga yàgg naa liggéey ay téere di ko def ci wàllu arab waaye kon ñun olof lañu nam alors euh, jàng mi demetul noonu ci ak xiram ak ci laaye biir ak li ñu wax ni nit kenn ñépp xame ko ko mooy jàng ak jàngale bu xew ñëpp yewu te xam na ne ñun ñëpp jottiwul ci arab bi yewu ci ñun mu dimbali ñu laaye biir ñu defal ko ci olof téere yi nag jëlul présenté ñoo présenté seen bopp bu ñu ko jàngee insha allahu ba mu àgg di ko ñettali ku ko déglu da nga xam ni téere yi am na na ki leen ko fas yéene nettali nag mooy seen mbokkum taalibe di léppi sëriñ bi ñu di ko wax Cheikh Ahmed Tidiane Samb kon Cheikh yow la ñuy dégg bismillahi rahmani rahim Sëñ Abbas dafay wax fii mu ni ci turu buur bi yàlla mi rahmaani te di rahimil waaxibil mannaani laa jóg di muslu ci pexey saytaane ak kub kuréelam nun bu mag bay daane may xaaru man ak faak njaboot bil baari ci bépp lor fi leyli wa nahaari nu bokk làqu wéeru ñaan ci yàlla ak yeneen tam ndax nu raw te jàll nu bokk làqu wéeru ñaan ci yàlla ak yonentam ndax nu raw te jàll nu mucc ak jullit yi min saytaane ak lépp luy fexey bakkan muy waane nee na saytaane noonu bu mag la waaye daal bakkan moo raw te yéesi mbir te ay pexem sakk bakkan mooy jaaru xaaybu muy lu gët saytaane bakkan mooy moylu yàlla buur bi mooy xiirtaane bakkan moo def ci nit ak rëy te yàlla moo ko moom ka gën tooñ mooy ko xëccoog mbir ya borom bakkan moo xeeblu jaam moroomu jaamam mbas bakkan bakkan bii moom moo xalaat ñi xalku nos leen ci bakkan Seydi Abbas nee na yéen gaa yi diine déglu leen ma wax leen déglu leen ma wax leen ci ay wolof la yàlla wax mu bir leen yàlla di wax ci alquran giñ ko wal asri kuy jullit te gëm na gëm ko yàlla nee na nit ñi ñépp mboole seen perte nañu ngir na gëm te jëf yu baax gañe nañu te fekk ñoom dëgg la ñuy dénkante ak muñ gu sax ci yàlla ñuy diggante doy naa xalaat cib jaam digganteem ak boroom ca bis ba ñuy dajee mu lan mooy ay solo ka gën ba faw mooy ka gën ci booba bis ku ñu fa gën mooy ka ñu gën faw mu def ka gën fa yàlla moo di jaam ba gën ragal wattuy tereem te topp lépp lu ñu ka yàlla yónni muy sangub mbindeef yi tey ilimaan ja jiitu lu yeneen yi muhammadu sayyiduna rasuulu mooy jaam ba yàlla fonk mooy xalilu kooku moo dëkk jaamu moo dëkkeet ak wéetal te mooy sabab ci suñu am mooy xéewal te moo di jëmmi yërmandey rahmaani ci képp kuy bindif bilaanu kuraan yi muhammad moomu mooy jaam ba xam ni bu meree sangam mer bu gërëm mépp sangam gërëm ci mépp yàllaa ko wax man yutixi rasulaa faqad ataa allaha xil maqula ku topp bi yonent ci wax ak i jëf yow yaay ka topp yàlla yaa am jërëjëf julli yow yàlla ci ngeen ji nooy jullee ci moom ak yi ñu nem di képp ku jullee muhammad moo wax te ay waxam boroomam nee na lépp ci ak wax yum la mooy yaasiina kon ku teew di dégg na jotal ko teew kookaat jotal keneen ka moo ko teewal mu dellu ñaanal ak ñi tëx waajee tuxal te soppiwul waxam njër muy fit ñay yaxal ña teewe woon te gis te dégg di tuxal ñooy àndandooy wóorle ñooy gaaya saxal ci seen gannaaw la topp seen jeexit ya ña topp ci ngëneel di seen baaxit ya ña topp ñooña topp leen ci sunna ñoo ñaat ñeneen ña topp leen bil bayna loolee di wéy noonee di wéy di wéy di wéy di wéy ba suñu tey nay wéy di wéy foo mën a dem waxam jawal qur'aani ñooy lëkkaloo muy firi bil bayaani na yàlla fay ko te fayit gaayam ya ci nun la yelloo mooy nga xam dayoom ya muhammad moomu nag moom moo ni diine moo di ak laa diire ci wax ju wóor la feeñ la ak la biire moo wax itam képp ci yéen ab sàmm la te dee ci laaj ab sàmm lañ ko sàmmloo Seydi Abbas nee na lii moo waral ma jóg di laaye biire njaboot gi ngir seytaane laa di féere njëlbeenu gii laa biire mooy wax koy wolof yu leer yu wóor te doo ci gis luy niru kaf du saw maninu du lu ma ci mii mbir waaye wolof nee na ko jaaxle dog wor moom wax ji gudd gàtt nanu bàyyi mana nan yew te yeete nelaw yàgg na moom wax ji gudd gàtt nanu bàyyi na nanu yeewu te yeete nelaw yàgg na